njiitu réew mi di Bassirou Diomaye Faye jiite na conseil des ministres bu njëkk ginaaw bi ñu ko sampee ci bopp nguur gi loolu nag lu muy wun moo di ne jawriñ bu njëkk bi léegi war na tàmbali fexe ba politique publique yi nga xam ne moom la nguur ji tekk mu jiite ministre yi ngir ñu mën ko doxal moom premier ministre moom mooy coordonné maanaam lépp loo xamante ne moom mooy activité wu gouvernement bi moom moo koy coordonné programme ak projet yi ñu tëral tam moom moo koy topp ànd seeg ministre mi liggéey boobu nag liggéeyu équipe la loolu moom leer na gouvernement bi tam fi mu toll nii bokk na ci liggéeyam ñuy fexe ba tabax booloo maanaam unité nationale ci loolee nag bu ñu xoolee profil ak expérience professionnelle yi nga xamante ne ministre yi am nañ ko te ku nekk wuuteeg sa morom faw nag ki nga xam ne mooy chef d'orchestre bi di premier ministre bi mu fexe nu ñu defee mise à niveau équipe gouvernementale maanaam ku nekk xam li nga war a liggéey yoon bi nga ci war a topp tey tamit nga xam naka la gouvernement di doxee responsable yëpp ku ci nekk école gouvernementale war nga ci dëpp ak service public jëf yu gouvernement yi di teg mi ngi dépendre si ministre yu nekk naka ngay gën a imprégné maanaam ni ngay gën a dugalee sa loxo si sa mission yi nga xam ne jox nañ la ko ak ni nga koy gën a xamee responsabilité gouvernementale yi ñoom ministre yëpp si seen kaw la tegu maanaam mun nañ jàpp na guvernement bi lu benn ministre def yeneen ministre yëpp la engagé loolee sax moom la ñuy wax solidarité gouvernementale loole ñoom ministres yi léegi faw nag ñu xam ko membre gouvernement bi war nañ xam ni ñuy jiite ay ministères di réagir ci bu mu waree di lijjanti urgence yi di communiquer maanaam wax ak askan bi wax ak média yi nekk ci réew mi ak yi nekk bitim réew ki nga xam ne moom mooy njiitu réew mi war nañ ko xaar mu def ay conseil des ministres décentralisé maanaam seeneen diiwaan jiite ay conseil présidentiel ak ay ndaje yoo xam ne day am ak yenn secteurs socio professionnels yi maanaam liggéeykat yi ci domaines yi ñuy nekk résultat bu baax ci liggéey gouvernement bi mi ngi aju ci performance bi nga xamante ne ministre yi ku nekk yaa ngi koy am ci li ñu la dénk